보여주던 야, 이거 지금 막 jërë ngeen jëf mbokki internet yi ginnaaw ba ñu nuyoo ñu leen di jaajëfal gis ngeen ne Ousmane Sonko état de santé am demeetul noonu gis ngeen ko nii muy pare pour dem hôpital xool wér gi yaramam kii di biram su Souleye joob nag yëkkati woon na ay kàddu euh, ci suba ne kii di Ousmane Sonko dafa am luñ ko sotti moo tax mu nekk état bi mu nekk nii kii di Birame Souleye Diop nag dañuy àndandoog yéen diglu kàddu yi nga xam ne nii moom la yëkkati woon te ci suba bi bi ni am maanaam Sonko dañ ko am luñ ko sotti dañ ko am luñ ko sotti devant tout le monde son avocat est malade il est parti prendre son certificat médical de yóbbu ko hôpital Ousmane Sonko jox nañ ko substance sotti nañ xam ne xamuñu maa ngi wax sénégalais yëpp di wax am boobu yëpp Ousmane Sonko benn karoom bu waddee benn karoom bu waddee suba on tiendra responsable Macky Sall de ce qui lui sera ce qui lui sera arrivé lii moo am ci dëkk bi démocratie la journaliste bu wax ñu tëj ku wax sa xalaat ñu tëj ku laaj ñu tëj ku leer ñu tëj ku wax ne terroriste la waaye Macky Sall dina jàmbaar moom jërë ngeen jëf mbokki internautes yi ginnaaw kàddu yu Birame Souleye jóob yooyu ñoo ko bokk dégloondoo dégg ngeen kàddu yi nga xam ne ni moom la yëkkati muy Ousmane Sonko dafa am lu ñu ko sotti loolee la daal di yëkkati dégg tamit ah, kii di di ah, Mari Sagna moom it yëkkati woon na ci ay kàddu yu demee noonu ne ah, Ousmane Sonko dafa am luñ ko xëpp ndax moom mee di di Mari moo ko téye woon ne kii di Ousmane Sonko du dem kàddu yooyu ne nag la kii di Birame Souleye jóob daal di yëkkatiwaat ne kii di Ousmane Sonko dafa am luñ ko sotti waaye kii di Macky Sall li mu nekk nii dañ ko cee bàyyi ndax eh, dara bu ko xusee kii di Ousmane sunko dinañ jàkkaarloo ak Macky Sall